ngeen jokk mbokk bi mbokk gi alquran ko isi wa taqul la alladhi tasaaluna bi wal arham wal arham moy bokk gi kon yalla fim ñu waxe ñi baye ko tan ci lañu waxe ñi baye xel bokk mbokk gi mu ngi bokkon ci lima waxon legi léegi foundation yi kër gi leg leg xalé yi ñala leen kay leen tem ngeen indi ci seen bajjal kay leen dem ngeen indi ci tey ci seen yaay bi kaay leen tey ma waxtaanal leen ci seen maam diw diw ak diw lii ak lii lañ bokk yooyu mu ngi mel ni dafa bëgg a jeex léegi ndeysaan aka mu am solo aka mu am solo yonent bi daan na ko dénk saaba yi diggante mbokk ak dëkkandoor aka ñu ko fonkoon kon wax naa la benn aaya bi alquran di wax ne ni ngeen di bàyyee xel yàlla na ko bàyyee xel bokk gi na ko bàyyee xel bokk gi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw isi aaya teg ci booru ah isi hadis teg ci booru aaya bi ne sillu arhamakum walaw bi jokk leen bokk gi même bu fekkee ci nuyoo la nuyoo asalaamualeykum waaleykum salaam wa rahmatullah loolu rek jokk bokk la bu ko xeeb de ki nga nekkal sa mbokk la da ngeen a bokk ci deret te boo tasee moom doo ko nuyu doog bokk ngay ñëw bu ngeen nuyu wante wul ñaari yoon ñetti yoon rek noonoo dugg seen digg waaye fekk yéen a ngee dajee di nuyoo rek eh, mun naa jur demlante mun naa jur joxante muy mayante mbokk ga dal nekk su fekkee duwul mbokk ak deret sa waaye mbokk ak diina la waaye fu ngeen tasee ngir nuyu wante jàmm sant boo doon waaxu sax nga wàññi tuuti sa tànk loola mooy foundation bi wala fondement ci jokk bokk ba bu ëllëgee soo ko soxlaa mu yomb ndax boo dajee nag boo bu ngeen dajee da di nuyuwaat waaye su fekkee da ngeen dajee di rombante ngaa toog fii rek ne dama soxla sama kër nangam ñëwee ne diw sàngam ma koy def te diw sàngam moom bu ngeen tisewaat da du ngeen nuyuwaat problème ñëw te nit fu la féetee boo gën fu la bant féetee te yàlla du wàcc def dara li muy def yëpp nit ñi nga koy jaare moo tax nit nañ ko fonk nañ ko bàyyi xel rawatina bokk su fekkee rek la yow ba tey nuyu boobu dafa nekk ak nu ngeen mënoon nuyu wante mayante xaajo bu ëllëgee jokk bokk ga day yomb moo tax yonent bi muy wax hadis bi mu ci njëkk a wax daf ne sillu arhamakum walaw bi salaam li ci gën a tuuti moo tax mu ngi si walaw li ci gën a tuuti ci jokk bokk mooy nuyu waaw li ci gën a tuuti assalaamu aleykum wa aleykum salaam wa rahmatullah ndaw waaye ndaw baat yu am solo dafay bijj dafay isi dafay maye mbëggeel ci diggante nit moo tax bu yàlla ne nañ toppatoo bokk gi bu borom bi ne nañ toppatoo bokk gi jokk ko yéen bi sax la mu ne nañ bokk même bu fekkee ci liyoo la fàttali nañ isib ak bokk fàttali ko xale yi fàttali ko mag ñi dégg nga ñuy bàyyi xel ci bokk jamono bi toll foo xam ne xëy na du ñëpp kat waaye am na ñoo xam ne bu yàlla dénkee xam-xam moo xam xam-xamu diina la wala mu dénk leen xam-xamu njàngam hmm? mu dénk leen mécc yu kowee mooy ay palte wala mu dénk nguur wala mu dénk place boo xam ne mbooloo ci wala mu dénk la alal yow da ngay mujj fàtte say bokk ndax da ngay jàpp ne yow bokkatula ak bokk yi sax foo juddoo yow yaa leen gën yaa leen a foor gënul gën la leen a foor yàlla moo feeñee ci yow xam-xam ndax yàlla mooy àllim mooy borom xam-xam yàlla moo feeñee ci yow am-am ndax yàlla mooy xani mooy boos bi yow doo la boos yàlla moo feeñee ci yow moo feeñee ci yow ba buy nguur yàlla quli allahumma malikal mulki lépp loo yoore complété bi yàlla bu mu la solol la comme bul foog ne yaa gën kenn de bu ko simmi war a nga mel ni ñëpp lii moo tax lii la yàlla dénk dafa war a dafa war a daf la war a booleeg say bokk daf la war a gën a jaxaseeg jaami yàlla yi dafa la war a yokk nga gën a oyof bëgg nit ñi waaye warul laa yokk diis ak daw say bokk tëj sa kër rek yow ak sa soxna ak xaj bi ak mbindaan bi xanaa ak waañ man bi kenn du dugg xanaa yow yaay toog toog rek mu neex la ne xaaral dem seeti diw waaw yi léeg-léeg nga tànn ci mbokk yi kenn dem seeti leen waaye kër gi moom kenn du fi ñëw loolu pour lan la ciment la rek ak suuf ak weñ ciment ak suuf weñ rek loo ko karu karu lu rafet rafet néeg bi lépp na rafet firij bi dara manqué wut lépp loo soxla wallahi am na ku nekk ci néegam ñax ba moo la dàq nelaw bu tëddee day nelaw ba wéq ba gént parce que amul problème amul problème digënté mo yalla amul problème digënté mo nit ñi mu ngi ji wétal borom mu ngi fonk jaami yalla xolam xolam dafa feex li olaf di wax gannaawam ba nag no problème waaye yow ni man na am sa digënté sa borom yaangi tilimal digënté bi ripp yaangi jaxlé do fi gëna a gëna tit man na am sa digënté nit ñi yaangi ngi leb bor yu jeex wala yaangi door dóor martu ci ay borom dégg nga yaangi ngi jaxase bi yëpp bo tëddee do nelaw bën moom gëm rek lay def waaye xolay nelaw de xol ba tëdd doo nelaw kee nekk ci néegam ñaxam ba tëdd di nelaw yàlla lu nekk la may am na koo xam ne mu ngi alal ju dul jeex waaye mu ngi yëg ci biiram métit boo xam ne wala yaxam yi wala bopp bi lu nekk def na ko pour faj ko mënta faj am na koo xam ne nii mën naa am dépasse amul ko waaye yëgul dara ci yaram bu xëyee dem liggéey am wér gi yaram amul benn problème lu ko neex mu lekk su ko neexee lekk ndawali guddi su ko neexee lekk lu ko neex lekk amu ci benn problème amu amu problème wér yaram waaye nag amu dépense yow yaa ngi ni am lu jeex waaye nen ngay lekk nen wala meew tuuti ngay naan ndawali guddi ñemewu la ko walaal hmm? kon mbir mi ci yàlla ci cosaan lii ma kon am-am wala xam-xam warul laa tàqale ak say bokk warul laay ak say bokk nay bokki deret ci zahir bi nii ngeen bokk ci famille wala muy bokk ci diina wala muy bokk ngeen bokk di doomu aadama nga xam ne yéen yàlla dénk adduna bi ngeen war koo defar ñun ñëpp waroon nañ cee mën a ànd bokk googu muy bunt biñ ubbi pour fas yéene dem ci même bu dee benn àjjuma la wala ñaar insha allahu tabaraka wa taala fondement dafa am solo de barki démb am nañ jataay bu mag bu am solo ci dëkk bi jataay bu ma kontaan nga xam ne ki jiite rabitatul islam ci adduna bi yépp jógee Saudia moo fi ñëw nekk gani président ñi dajee fële ci zadawle Kéréba Jawara xool bi muy jataay bu am solo lu tuuti tuuti ñetti junnee nit mën nañ ko Afrique yu fu nekk la nit jógee ñëw waaye hëdafu waxtaan ba yépp mooy waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu nañ jàpp ci buum ak yàlla gi te bañ a tàqale ko bi ma gisee siyaar bi fi ma toog ci toogu bi am naa xaatir ma ne ndeysaan dafa mel ni kontaan naa ci jotaay bi waaye dafa mel ni maa ngi gis ne eh, eh, olof njaay mu ne ku taal daay danga nga yaay gën a fay de man loolu laa jàng jàngat bi mooy lan mooy saoudiya googu jiite rabitatul islamiya nga xam ne tey ñoom la seen njiit ñëw bi mu ñëwee bi mu jëlee kàddu lu mu wax sofi sunni sia ñoo ñëpp ay firqa firqa ci la waaye ku nekk ñi nangul la ñi ànd nekk benn ma jël kàddu gi gis ni mu nekkee dëgg ak ni amee solo waaye ma fàttaliku démb ne suñ doom yi ñu isil problème ci dëkk bi yépp ñoom ñoo leen jàngal mu mel ni dañ jëloon nit ñi ne leen gis nga Afrique diina nekkul fa ñu jël leen dugal leen ci seen université yi tij leen jàngal leen ba jox leen diina joo xam ne bu ñëwee seen baay ak seen yaay njëkk a xeex Boko Haram yëkkati ay nit ñi nañ gëm yàlla wala ñu rey leen alxaayida dégg nga bopp euh, ñoom itam jóg Ben Laden génnee Saudia génne tasaaru nekk ay Ben Laden yu bëri ne gëm mbaa dee di daaneel ñoom ñi faaw ndesoon loolu ñoom Saudia bañ gis ne dëgër na ñu xam ne daay gaa ngi tàkkati ci seen kaw la jëm ñu ne kon na ñu war a dëgër bi xamal leen nag du noonu ñun ñëpp benn lañ xamal loolu laa jàngat nag te loolu rek la dafa rafet dama ci kontaan ci jotaay bi laa ci jàng ndax li ma man li ma seetlu mooy mboolem fitna yi nekk ci dëkk bi jafe yi nekk ci réew ci réew yi diina ji ñi koy oote ak ñi oote baatu laa ilaha illallah di téye a ki fetal di rey nit ñi daanaka li ci gën a bëri ñoom ñooleen leen ñoo leen ñoo foofa lañ leen tërëne ba léegi ñu ngi leen faa tërëne buñ leen tërëne foofu par dañu tassaro dema dem nak ba léegi taal nañ ko mu wóor leen ci seen sen ko lañ jib ku yar xar ba muy daane nga jangal ko nu muy daane fi boy wa bare de benn bis nga ñew di may ngooñ rek mu defal lako xar waaw ah xamu dara di benn bis nga ñew di jox ngooñ rek mu dal ci sa ko pim dafa am benn waay boo xam ne daf daan saboté euh, sahaba yi mu am ñaari mbaam benn mbaam bi mu tuddee ko Omar ibn Khattab benn mbaam bi mu tuddee ko Babacar ndéeg bañ gum bañ gaay waaye benn bis ma leen doon jox lekk rek benn mbaam bi na ko pim yëpp ci bët bi bët bi génn bët mi ne bu xeet génn waaye bañ joxee xibaar bi yonti yàlla mama daf ne ah, xawa man mbaam mu ko wéqal waaye ragal naa bi mu tuddee Omar la Omar moom kenn du ko fonde yàlla ne yonent yàlla ma ne na bu jaaree ci mbedd sax seetaan du jaar kon li ma bëgg a wax rek mooy ne il faut ñi fondement mbir mi ci suñ xol yi mooy sa xol bi def ci yàlla gannaaw loola nag mboolem jaami yàlla yi nga nangu ay jaami yàlla lañ yow moomuloo aljana moomuloo safara waaye bu fekkee fondement nañ xale yi ci ne kuñ gis xeeb la ñoom ñoo am xam-xam dégg nga buñ demee ci loolu nag ba léegi fu ñu toll ñiy taal ay bom di dugg ci jumaa yi di rey te ñi ko def buñ pare allahu akbar ngay dégg ñuy wax soo wadee ñoo la gën a xam ne ci seen kaw lañ léegi nag kon nañ gaaw di lu waraat na adduna bi xamal leen na nag ñun ñëpp benn lañ ñu nangul siya yi nangul euh, dégg nga sunni yi ñu nangul soofi yi ñu nangu ñu nangu ñu nangu waxte si moo bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu ma kontaan ci keroog waaye ma gis ci njàngat bu rëy ne nekk kuy fondement dara booy boo nga fondement lu baax kuy lu baax ndax bu saxee nga kontaan kon lii mooy li xew kër yi nañ ko def noonu nañ toppatoo kër yi te duut joxe dépense rek duut joxe dépense rek nit ñi lekk duut jëndal leen yére rek ñi sol duut defar kër gi rek ba mu rafet waaye ñi toog ñu nu neen yow mi borom kër gi ngay joxe sa ay idée yu rafet jabar ñi surtout jigéen ñi léeg-léeg ñu xel yu rafet ñi joxe ko doom yi noonu ñi ñu xool ci bët di topp ndoor lu baax waaye kër goo xam ne fuñ toll télévision bi lu bon lay génne du génne benn waare do wax ak xale yi dara yow soo ko bëgg de seetaan sax yaa ngi ci biir téye sa mobile bi xale yi xamuñ dara dara dara ci bokk gi yitteeluñ kenn ku ñëw ne nuyoo ne salaamaaleykum ñu daw dugg ci biir néegu duñ la gis ba balaa ñoo dem duñ jéem a lijjanti sax doo ko oo sax ne ko kii sa yaa diw la sa baay diw la sa nijaay diw la mbokk gi ñu jël ko sànni ci yàlla ba te alquran ne ko jokk yonti yàlla moom ne nañ ko jokk loolu day na war bunt boobu lañ bëggoon a ubbi tey waaye laamin wan nañu ne lañ amoon ci taayam jeex dañ koy yeewal foofu te ñaan borom bi tabaraka wa taala mu may ñu dégg ak topp ñu ngi ñaan ne ku doggoor amul ku yàlla dimbali am yàlla nañ ànd ak dimbali yàlla ci zaahir ak baatin wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain moo jeex xam naa ne tey duñu mën a jël kool nag gaa yi ngi fëgg waaye duñu mën a jël kool waaye Cheikh Baye tey dafay indi lu am solo xam naa nag Cheikh Baye eh, beneen àjjuma moom dinañ ci gën a yaatal incha allah yaa ngi dugg foo xam ne naa dimbale ci ñenn ci nit incha allah parce que jamono ji tey da ngay dugg ci kër sax fekk mbokk ngeen waaye borom kër ga sax pour mu oo xale yi wan wan wanale la ak ñoom sax a ñàkk nag ci bu fekkee ne koo la eh, yaakaaruñ ci dara yaakaaruñ ci yow nga dugal sa loxo sa poche dara jox leen xale yi duñ la xam ma rawatina ñeneen ñi fa te loolu nag war nañ ko mën a dimbalee ñenn ci askan bi ci àdduna bi wala boog ci réew mi su ko naa dañ lay bàyyi eh, nga tàggatoo ñu joxe dig daje rek beneen àjjuma jàmm incha allah ñu ngi jégalu nag gaa yaa ngi fëgg bu baax a baax waaye ñu ngi ciy jégalu. sant ñëpp rek gërëm leen hmm, rawatina nag eh, mbokk yu fonk programme bi. te mm-hmm. eh, jiite ci nag suñ mag suñ imam Thierno Aliou Maska san kero programme bi ñu koy gis ay mag gi ñëw na ñu koy ñaanal yalla mu yag ci kanam njaboot gi ak wër ak eh, aji daado eh, ma ngi nuyu tamit eh, suma xarit a Mr Sa naka alaji antuman Gueye Mr Edward Gomes ak kër ga yëpp ñom alaji ñom Touré doom baay maa ngi leen di seet waaye ak Mohamed kebe ci jàngal Mohamed Kébé fu lay nekk ci Kër Omar Foundation lay topp la waaw maa ngi koy lay topp la ndeysaan maa koy nuyu ak waa kër seen yëpp waaw waaye euh, ndeysaan alaaji antumaan ak suñu yaay ja Adama Faati mm. ci ga ak euh, njaboot gi yëpp di leen ñaanal jàmm ak yu ma ba Barata ñoom ñëpp waaye aji roqi saaw mm. dëkkandoor yi rajo bi fii ñu koy seet bu baax moom tamit ak euh, sëriñ ba ak aji ramu Kamara mm. maa koy ziar xam naa ko gis mu ngi ak ak anti Mari Mbengue anti Ndeye Seck ak jàngale ci lislaam moom ñëpp rek laay wax ñoom ñoom alaaji Seydi alaaji Seck ñoom Seydi Habib Mbaye ñoom Cheikh Mouhamed Lamine Haydara ñoom Seydi Mané ñoom ñëpp daal jàngale ci lislaam bàyyiwuma kenn maa su ko defee incha allah waa hadara bi itam ci jumaa ji ñoom ñëpp ñoom ñëpp ziare naa leen incha ko defee ñi yeewal foofu ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci kër ba Cheikh Omar Touré Mamat Mamat maa ngi lay ziar bu baax ak waa jumaa ji yëpp waaw ñëpp maa ngi leen di ziar sañ suñ mag sañ Habib Touré fa la ci yundu ak waa kër gi yëpp incha allah la jazaakumullah wa nakulla xayran asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëñ